dalati leen ak jàmm ci li gën a fes ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy dooree ak saytu bi nga xamante ni jëwriñ gi yor wàllum wér-gi-yaram ak action sociale mu ngi koy béral bis bu yàlla sàkk nege ni tey mu yemboo ko mardi 9 juin muy xamle ci limu ko junni ak ñeenti téeméer ak ñaari test yoo xamante ni ñu ngi ko doon amal muy xamle ni juróom-ñett fukk ak juróom ya daal dinañuy dellu si amee doomu jàngoro gi juróom-ñaar fukk ak benn yi nekk ay cas contact yu ñu doon saytu benn nekk kaa boo xamante ni dañu ko jéggaani jëlee ko ci diwaanuk AIBD xam ne ne fukk ak juróom-ñaar nekk ay transmission communautaire ca waxtu wile mu ngay xam le naka limu ko téeméer ak fukki doomu aadama faj nañu leen ba ñu fas yéenee génn ca bërëbu l'hôpital ya fukk ak ñaar saa si ñoo nekk ca réanimation ca sauvetage mbas mi ba mu dooree ci réewum Sénégal ak léegi ñu ngay xam ne ni situation bi nii la tëddee ci li mu ko ñeenti junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom benni doomu aadama ñoo ko fi joto amee waaye ñu ngay xam ne ni li ko ñaari junni ak juróom téeméer ak juróom fukk ci ay doomu aadama faj nañu leen ba ñu wér juróom fukk ak ñaar daal di nañu ciy ñàkk seenu ko bakkan li tëdd ca lalu hôpital ba saa sile tembe ñuy saytu seen wàllum wér-gi-yaram ñu ngi toll ci li mu ko junni ak juróom benni téeméer ak juróom fukk ak ñeenti doomu aadama yoo xamante ni seen wàllu wér-gi-yaram dafa tagatémbe ñeel mbas mile ginnaaw saytu boobee nga xamante ni nag nege ni tey loolee la ñu faram-fàccee waral na nag ba jëwriñ yi nga xamante ni rek ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllum euh, mesure barrière yi di way takk der yi saa sile tembe nag ñu ngay xamle ni loolee daal dinay jeex fii ci diiwaanuk Sénégal ndaxte dootuñu mayati ab benn sénégalais boo xamante ni yaa ngi génn di dugg ci ab loto li ci mel ni transport en commun wala ngay bàyyeekoo ci diggante dëkk ak dëkk comme ni ko njiitu réew mi waxee te doo jël mesure barrière yi respecté ko comme nañu ko waxee saa tembe ngir àndandoo xeex googule mbas ca waxtu boobee nag police nationale moom nag daal dinay décréter benn fin du relâchement bàyyeeku bi nga xamante ni rek moom la ñu nemmeeku woon ci askanu ko Sénégal mu ñu sukkandikoo ci L'As quotidien daal dina directeur de la sécurité publique moom nag daal dina ci ànd ak commissaire Abdoul Wahab Sall saa si le tembe daal dinay envoyé nag benn not boo xamante ni mu ngi ko yóbbu rek ci centre urbain yu arrondissement yi ak ci poste de police yi ngir ñoom ñëpp ñu daal di takku taxaw askan rawatina ci moyen de transport bi ñu daal di xool askan yi ba xam ñoo ngi respecté ñi takk seeni masque ak ña ko takkul ana yan daana war a lalu ci seenub kaw ba tey dañuy daal di àddu wax ci mbir mu doy waar mi nga xamante ni nag saa si tembe rek moo daal di xew ca diwaanuk Italie ca itali googee nga xamante ni nag lu tolloo ko fukk ak juróom-ñetti doomu Sénégal ñoom la ñu daal di teg loxo dara waralu ko rek lu dul wàllum cocaïne di wàllum dorog bi nga xamante ni ñu nga koy jëfandikoo bu ñu sukkandikoo ci Les Échos yéenekaay mu ngay xamle nag ne fukk ak juróom doomu Sénégal yooyee ñoom ñëpp ay nationalité sénégalaise la ñu daal di yor ñu ngi fekk ci ñoom nag limu ko 10 000 dose yoo xamante ni rek ay cocaïne la la yooye nag ñoom ñu ngay xam ne ni dañaa jëloon seenub apartement ginnaaw ba ñu nekkee ci seenub waañ di togg lenn ci ay drogue di ko paqueté waat waaye tamit daal di fay yor ab laboratoire bés bu yàlla sàkk rek kenn ku ci nekk di nga gañe ci lu tolloog li mu ko 500 euros ci koppar goo xamante ni rek bari na bari goo xamante ni jaaxal na ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der ya nekkee ca diwaanuk l'Italie ba tey dañuy daal di desandi nag ak déegu bari gi nga xamante ni nag nemmeeku nañ ko fii ci diwaanu ko Sénégal te mbas mi ba mu dooree ak léegi bii moo di guléet ñetti doomu aadama ñàkkandoo seenu ko bakkan ci mbas mi la ñu ngay xamle nag ne ka ca njëkk rek mu ngi am ci lu tolloog 69 ans ka ca topp am 43 ans ka ca topp am 44 ans ñoom ñooñee ñëpp ñoo ñàkk seen bakkan benn ca l'hôpital principal ka ca des ca l'hôpital Le Dantec keneen ka daal di ñàkkee bakkanam ca l'hôpital Fann saa si la tembe nag ñuy xamle rek ne réewum Sénégal Sénégal nekk na ci li nga xamante ni ab guddi gu bër setagul la ndax mbas mi bés bu yàlla sàkk mu ngay wëy di am ay tànki kanam ñeneen ñoo xamante ni saa sile tembe nag njàqare ak tiisi ci lañ ñekk du ñenn ñu dul askan ba yeewoo ca HLM ca HLM googee nag nga xamante ni ci jamonoy mbas mi le soxla nañu ab ndox jafe na lool ñu daal di koy teg akub gët bu ñu sukkandikoo ci le témoin mi joxe boobu le xibaar mu ngay xamle nag askan ba yeewoo ca quartier bu Dakar rawatina fa nga xamante ni moom moo di ca HLM dañuy xëy bis bu yàlla sàkk duñu am ay ndox ñu ngay xamle ni depuis àjjuma ba tey ji lay yemboo ak mardi jafe na lool ñu daal di tijji seenub robine ab ndox daal di keywal waral na nag ba ñuy yuuxu wuy wàllu ñu daal di des ci wàllum phobie tijjiwaat dossier ki nga xamante ni moom moo di Thione Ballago Seck Thione Ballago Seck mi nga xamante ni nag atteem bi daal di koy dàq fukki fan ak juróom ci weeru juin bi nga xamante ne moom la ñu nekk ñu ngay xamle ne kii di Thione Ballago Seck li ñu koy toppee bokk na ci wàllum phobie bu ñu sukkandikoo ci L'As Quotidien mu ngay xamle ne cour d'appel bu Dakar moo daal di dàqaat attepp Thione Ballago Seck boobu ak ki ñuy woowee alay jiite ba fukki fan ak juróom ci weeru juin 2020 gii ñu dëgmal ba tey dañuy daal di desandi nag ci njiitu réew mi nga xamante ni rek daal dinay bind ab benn tweet daal di koy jaarale nag ci xarale yu yees yi moom nag saa si le tembe rek njiitu réew mi Macky Sall mu nga dem ca tweetam daal di bind ab message boo xamante ni nee na saa si le ko ñor du leen rek lu dul kaaraange biir réew mi waaye tamit seen wàllum wér-gi-yaram ginnaaw ba muy xamle ni ab wér-gi-yaram sax nag moo daal di jiitu suñu paree daal di wax ci suñu wàllum sécurité muy suñu wàllum kaaraange njiitu réew mi daal ne nag loolee ab teem la ko daal di def waral na naka ba saa sile tembe mu ciy gën di soññee beneen ko dossier boo xamante ni saa sile tembe nag li muy sàkku rek du lenn lu dul ab bàyyib négandiku di liberté provisoire moo di ki nga xamante ni moo di Mamadou Diop ISEC Mamadou Diop nekk président directeur général bu groupe ISEC saa sile tembe nag moom mu ngay sàkku jaarale ko ci ay avocat wam ngir ñu jàkkaarloog juge ba daal di koy may ab bàyyib négandiku ca waxtu boobee nag ñu ngay xamle ne le 12 mars bi la ñu daal di génn nag waral na ba kii di Mamadou Diop ISEC ba ñu ko tegee loxo saa sile bi moo di ñeenteelu ko demande provisoire boo xamante ni mu nga koy déposé ngir ñu daal di koy bàyyi ñu ngi xam le ne kii di chambre d'accusation bu cour d'appel bi dafa daal di dàq boobule ordonnance jëmale ko ci juge bu huitième cabinet d'instruction bi Mamadou Diop Iseg dafay daal di tëdd ndeegum ca kaso ba ginnaaw ba ñu koy toppee lépp lu jëm ci wàllum pédophilie ak détournement de mineur keneen koo xamante ni nag ab sénégalais la ñu daal di yàqati ab deram ba mu yàqatoo du kenn ku dul El Hadji Ousseynou Diouf nekkoon l'international sénégalais bi nga xamante ne kenn dootu ko àddina wërngal këpp ndaxte ka fa nekkoon défenseur bu Real bu Madrid daal dinay taxaw nag yëkki ay kàddu yu ñàkk teggin teg ko ci kaw kii di El Hadji Ousseynou Diouf ndaxte mu ngay xamle ni kii di El Hadji Ousseynou Diouf toog na ay deux heures du matin daal di koy fëgg ci ab appartement wam laata mu koy tijjil mu daal di koy gis mu ànd ak fukki xale jigéen yoo xamante ni El Hadji moo nekk onzième personne ba ca waxtu boobee nag défenseur bu Real Madrid bi daal dinay xamle ni kii di El Hadji Ousseynou Diouf doxalin bu ñaaw rek la daal di jaarale fële nga xamante ne moom moo di ca Real de Madrid ginnaaw bi nga xamante moom ab tout tànk la El Hadji doon ko fréquenté doon ko indil yooyu la jigéen ci biir appartement wam ana wax yu ñaaw ji lan moo tax défenseur bu Real bu Madrid toog ba tey soog di ko feeñal facile tembe nag El Hadji Ousseynou Diouf ku ko xam xam ne du bàyyi lenn mu sedd waral na nag ba défenseur bu Real bu Madrid boobee nga xamante ni moo fa nekkandoo woon ak El Hadji Ousseynou Stéphane Guérat deful woon lenn rek lu dul El Hadji ay coono la ko fa indiloon ñu daal di des ci coow li nga xamante ni nag saa si la tembe mooy lëmbe ca diwaanu TFM TFM gi de dafa mel ni quartier général bi doonul ab quartier général mais ab quartier féewaloo la ñu nemmeeku ginnaaw bi nga xamante ni nag Tayib Socé daal di nay taxaw nege ni démb daal di déposé li nga xamante ne moom moo di ab lettre de démission wam waaw Tayib Socé daal taxaw di weeru koor gi invité nañ fa kii di Ahmed Khalifa Niass Ahmed Khalifa Niass daal di taxaw yàq ko lu mel ni mbere mbese di ko xamal ne ko yow sax ab doomu ngoyaan nga te man ah, doomi Cheikh Al Khalifa laa ca waxtu boobee nag Ahmed Khalifa Niass ne bu kenn tuddati turam di tudd turu Tayib Socé ndax Tayib Socé doomi ngoyaan la ca waxtu boobee Tayib Socé daal di xëy ca lendemain ba di tontoo ki nga xamante ne ah, moom moo di Ahmed Khalifa Niass ne ko may naa la nga wax lu ne waaye samay wayjur boo ci jàllee baat ma jaay la sama bakkan ginnaaw xiiroo ak ŋaayoo yi nga xamante ni nag dox na ci diggante Ahmed Khalifa Niass ak Tayib Socé Tayib Socé daal dinay jàpp ne waa TFM defuñu lenn rek aludul ah, woo ki nga xamante ne moom moo di noonam mu too ko di ko yakk lu mel ni xeme waral na nag ba waaraatekat bi saa sile tembere ka li mu def doo na lu dul bind ab lettre de démission dem jébbal ko ki nga xamante ni moom moo di directeur général bu Télé Futurs Médias ca waxtu boobee nag Tayib Socé mu ngay xamle ni moom ba mu nekkee ci ay jafe ñii di waa Futurs Médias dañu ko seetaan seetaan ba ñu koy ketal li nga xamante ni moom moo di cent millions ci fàttali groupe Futurs Médias yëkkati woon na ci lu tolloo ko juróomi millions daal di koy jébbal téléthon bi nga xamante ñu ngi ko doon defal kii di Tayib Ayib Socé ab laaj samp ñi naan laan yàlla nee na yonent bi nee buñ dee defante moom ñun ña ca des ana fan la ñu jëm ñu daal di àddu wax ci beneenuk mbir mbir mi nga xamante ne nag moo dox ci diggante promoteur de lutte bi di Luc Nicolas Luc Nicolas mi nga xamante ne nag saa sile tembe rek di nañu koy tëj ci juróomi atu kaso ginnaaw bi nga xamante ne benn bi ab sursis la du ko tëdd li ñu koy toppee bokk na ci wàllum détention de drogue maanaam yoru ko drogue waaye tamit association de malfaiteurs ca waxtu wi le nag ñu ngay xam le ne bàyyi woon nañ ko ca diwaanu ko ndar géej bu ñu sukkandikoo ci suñu làmb Luc Nicolas daal dinañu koy indi fa nga xamante ne moom moo di ca maison d'arrêt ak bu correction bu nekkee ca diwaanu Thiès muy mag bu Thiès fa lañ daal di teeral ki nga xamante ne moom moo di Luc Nicolas Luc Nicolas nag li ñu koy toppee bokk na ci téeméeri millions yoo xamante ne ñu ngi koy sàkku ngir mu remboursé ko ak tamit vingt millions yoo xamante ne war na kaa jébbal ki nga xamante ne moom moo di Bernat Tulli waaye tamit hôtel bi di Lamantin bis mu daal di yëkki ab ndàmpaay daal koy teg ci seen seenub loxo